Référence TV la chaîne de l'innovation. ko tax a jëkk moo di jigéen ñi jigéen ñi am taxawaay ci li nga xamante ne mooy ressources yu bees yi nga xam ne sunu borom bi may nañu ko mu di pétrole bi ak gaz bi. xam ngeen ni àdduna dafa dafa dafa soppeeku lu baree bari tey jii àdduna bi yëpp ngi yëngu. fu nekk euh, coow ngi fi jib surtout nag ci suñu biir Afrique bi et rax ci dolli sunu su région bi euh, ku nekk xam ne ne fépp a ngi tàkk waaye ñu ngi sant yàlla euh, ci Sénégal bi ñu amee ba léegi stabilité waaye euh, pétrole fu mu fu mu feeñ rek dafay indi ñaar lay mën a indi jàmm ju bëri parce que géré nañ ko bu baax askan wi yëpp gis ci seen bopp wala ay woo nga xamante ni dafay tas askan wa ñun nag dañoo bëgg suñu pétrole bii comme yàlla suturaal nañu mu indi jàmm ju bëree baree baree bëri te pour mu indi jàmm il faut que ñi nga xamante ni ñoo ëpp ci askan wi te gën a sonn ñu jëriñoo ko mu di jigéen ñi ak seen njaboot ndax ñoom euh, euh, daanaka askan wi bu ñuy lim téeméer bu ne jigéen ak njabootam daanaka juróom-ñett fukk yi ñoom ñoo koy occupé donc il faut que jigéen ñi intéressé wu ci loolu préparer seen bopp xam pétrole bi mooy lan xam niñ ko tërale dugg ci ba pare ñu responsabiliser leen ñu doon aussi ay njiit ak ñiy dogal ci mbir pétrole bi parce que mu jëriñ askan wi loolu rek moo waral atelier bi jóg ñu di ci gërëm nag CCBLF ak Canada ndax ñoom naka jekk enjeu bu taxawee ñooy jëkk a taxawu génn Sénégal ñeen fukki at a ngi nii ñu di ñu taxaw ñoo ngi leen di gërëm di leen sant. wante dañu bëgg yeneen instance de gouvernance du pétrole et du gaz yi nekk Sénégal président Macky Sall gën ci dugal jigéen ñi maa ngi bëgg a nommer comité national ITIE baax na.

Manam euh, pour mën jappalé organiser organise jigen ni pour mën len jox ay information yi nga xamné yoy mo len di tax ñu mën a liggéey ci li nga xamné mom lañuy liggéey donc ñu ngi wax affaire secteur gouvernance secteur industrie extractive donc bu ñuy wax secteur industrie extractive dañuy dégg ay mots yu bare dañuy dégg contenu local dañuy dégg gouvernance dañuy dégg euh, la question des genres et cetera donc kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci thématique bi nga xam ne mooy pétrole beeg gaz bi ñoom ñoo ne balaa ñuy intervenir ci thématique bi baax na ñu xam baax na ñu am information yi nga xam ne moom moo ñuy dimbali pour que bu ñu demee ci kanamu njiit bi wala ci kanamu décideur bi ñu mën ko wax lii ak lii ak lii moo tax ñu jóg donc bu loolu weesoo ñu am euh, benn étude benn recherche boo xam ne projet bi daf ko def étude boobu daf ko def ci trois thématiques ñetti thématique plaidoyer yi nga xam ne moom la ñu am te ci thématique secteur pétrole bi gaz bi daf ci bokk donc résultat wu études dinañ ko partager fi té lolu dina len permettre pour pour ñu mëna dem ci étape bi nga xamné bu atelier bi jéxé fa lañu jëm moy défar argumentaire bi nga xamné mo len di permettre ñu taxaw ci kanamu décideur bi ne ko ak li li motax ñun ñu bëgg a ñi nekk ci biir euh, ci biir kuréel bi ñuy wax ITIE wala yeneen instance de gouvernance yi donc en parlant de cette ITIE là ñu am ñaari organisation yi nga xam ne ci partenaire projet yi la ñu bokk maanaam ONG fait, bi nekk Fatick ak euh, euh, WIM Sénégal ñoom ñaar léegi ñi ngi ci biir comité ITIE bi te loolu yëpp ci Euh, activité plaidoyer yi nga xam ne ñoom yooyu la ñu jot a mëne te bëgg nañu fii en tout cas bay yenn jëmmi jamono ñu amaat yeneen organisation kuréelu jigéen yi nga xam ne dañuy bokk ci comité ITIE boobu. ci kuréel bu ñuy wax Women in Mining Sénégal te Women in Mining Sénégal di organisation bu njëkk wala association bu njëkk sax laa war a wax boo xam ni euh, ñi ngi liggéey ci wàllu secteur des mines du pétrole et du gaz te liñ ci wutu li liñ ci wut yépp moom mooy que tey jigéen yi nga xamante ne nekk nañ ci secteur bi mooy jigéen yi ñu impacté muy jigéen yi liggéey ci biir entreprise bi ñi ci administration bi entrepreneur yi ñëpp ñu mën a am ñu mën a gën a suqali seen seen dundin ndax xam nañ ni euh, buñ leen ci taxawoo ak euh, compte tenu euh, apport wala contribution bi femmes yi di def ci développement réew mi danañ mën a suqali bu baax réew mi danañ mën a taxaw bu baax seen i njaboot et particulièrement seen i doom yu jigéen Euh, ñu nag malheureusement ñu nekk chiffre bu ndaw am taxawaay bu ndaw a ndaw ndaw sax ci biir secteur extractif bi ci kaw taxawaay boobu bu ñu euh, jëlee euh, rapport yi ko firndeel benn rek la fi sax d'ailleurs Sénégal muy rapport ITIE bu 2020 ci biir rapport bobu ci téeméer bu ci nek juróom-ñaar lañu ci yu toftal touti té encore que chiffre bobu sax dafa partiel genn wàll rek la matul sax xaju genn wàll la wara wax donc muy muy muy une fois de plus que nous ay cartographie nous ay étude nous ay rapport yu leer nañu lu mën a ne jigéen yi lii la ñuy ci secteur bi fi moy sen ay domaine d'intervention. li lañ fi def li lañ fi ñak te loolu kenn ku ci nek xam na ni pour décideurs yi mën jël ay ay ay ay mën a jël ay stratégie wala ay politique d'inclusion de genre pour euh, prendre en compte les besoins wax besoin et intérêt stratégiques de la il faut que impérativement ñu am chiffre pour que nous mëna un outil d'aide à la prise de décision donc ce qui au moins chiffre pour que mu permettre pour que ñoo suqali mhm. chiffre catégorie yi liggéey ci biir entreprise yi rek te même ba ci sax du entreprise yëpp moy entreprise yi nga déclaré nangu nañu déclarer effectif waaw te bu ñuy jël entreprise yooyu ñi nangu déclarer effectif ñu néew lañu ci biir rapport ITE moom la ñuy wax les entreprises qui qui sont dans le périmètre de conciliation de l'ITE moo tax aussi tamit ñuy porter plaidoyer bi plaidoyer bi pour euh, plus de participation de femmes dans les instances de décision parce que si ñu fa teewee danañ porter euh, revendications aux familles ak préoccupations mais surtout la formation information formation sensibilisation ndax da am nous avons droits par exemple boo jëlee ONG fait sama sœur bi Nous sommes nous waxtaan ak nous itam muy waxtaan ak qui yi nga xamante ni réseau nous leen di lekk kanaan di tëdd di jug di nekk ci seen ay activités yu ndaw ndaw mais baa yëg ngeen ni entreprise yii di ñëw pétrole bii nga xamante ni gis nañ ko fii ci bloc de Sangomar bi dinañu impacté ñooñu ne ko déedéet kay mu ne leen axankañ te ci kaw loolu nag am ngeen ay droit te droit yooyu tey bu fekkee ni xam ngeen ko jàngal nañ leen ci yee nañ leen ci di ngeen dem ba dingeen mën a revendiquer seeni droit mm. parce que mbir balaa nga koy revendiquer da nga koy xam ba pare mm. du l'importance tey ñu toog fii ci kuréel bi nga xamante ni nag euh, atelier bi wax deug yalla réseau Siggil jigen delloo ñu li ñuy moom Santé, ci santé di ko ci gërëm euh, Women in Mining Sénégal wala euh, def euh, les présentations présentation yoyu di porter ci contenu local di porter ci gouvernance des eh, enjeux ak perspectives du yu yu secteur bi di porter ci artisanat minier l'emploi et la formation mais surtout muy porter ci l'entrepreneuriat féminin pour que tey présidente organisation yi fi nekk buñ leen xamalee ba xam ba maîtriser xam cadre juridique bi lu leen yoon may lu leen yoon mayul li leen entreprise yi may ak lu leen entreprise yi xañ ñu mën a xam nekk suffisamment informé pour que bu ñu jàkkaarloo ak décideur bi ne ko ah diw mu ne ah mu ne ko ak li ak li moo fi nekk indil ko ay chiffres clés wax ko les manquements nee nak ci kaw manquement yoy li ak li lañ bëgg nga doxalee tay niñ lay proposer nga awé ci yoon bi pour ñu mëna atteindre suñu objectif commun. toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV Référence TV la chaîne de l'innovation.